بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إن ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به قد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم أبصارنا بل نحن قوم مسجون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها ñu wax amiin ba àggal ñëpp wax amiin ba àggal amiin ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد حساد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس الناس لا يحمل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط خير المحمود عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك وهم المبطلون أعوذ بالله من الشر الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم وكان الارحام ربنا وقبلنا من الزاهدين اللهم ارحمنا بالقران الكريم وانفعنا بالايات والذكر الحكيم واجعله لنا حجنا يوم الدين اللهم انفعنا بما سرت فيه من الايات وذكرنا بما درت فيه من المثل وكبر بتلاوته على بيانك مجيب الهوات اللهم تقبل منا قدم القران وارجعنا ما كان في تلاوته من نسوء او نسيان او تاليف الاولاد وتأخذ الأوزان أو نقصان أو تولها نخل من شجر أو تجريد بلا وجزئي أو كسل الأوساق الميزان وقف بخير وقف أو الدقاء بالبخير ودخل الجار بخير بين كنت منها على التمام والكمال والمهد والجلال وارزقنا فضل من ترمرها قوم الأعداء وقلبه اللسان وهب لنا بالخير والسعادة والجزر والأمان ولا تغلب لنا بالسر والدلالة والطغيان ونبنا قبل المنايا منا من قبل والكسلان وآمنا من حاسب القبر ومن المنكر والنكير ومن أكل الجيزان وبيت وجنا يوم البحث ودرخ من من النير أجرنا ويمن كتابنا ويدر حسابنا وسقط ميزاننا بالحسن وثبت أقدامنا على الصراط واسقنا وسل الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أكرمنا بلقائك يا ديان علم جل القرآن حجب ربه قلوبنا وجل أعطاننا وصحب قممنا وقال إلى جنته علم جل أنيسنا في الوثن ومسابنا في الوثن ومثل نفس المتي والجميل حتى نبيك واهتمنا به من السخي والاهواء وكراهنا يا اللهم اعطم بزاد اجلنا وقم زاد امرنا وقم بلادنا وجل الله رحمتك مصيرنا وما له وخذ الجل حقك على تحلنا بستره يومنا الذي جل تقواك سالنا وسكن ذكرنا واهدنا وامن من الجوع والقهر الا بالله وزاد اللهم بلغنا ما قرأناه والنور ما تلوناه سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام وبأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأزواج أزواجنا جعل عدنا أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وذاكرهم والإراج المؤمنين آمين على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين والمرسلين اللهم ربنا صل وسلم على يا من خلق الدنيا تبارك وخلقنا آمين كما وحدنا يا ذا الجلال والإكرام أنك لا تضل بهك وصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ونهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وقدره إن الله ملائكته النبي يا رسول آمنوا صلى عليه وسلم وسلم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلام وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة صلاة الفاتحة.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 waaye itam di leen nuyu ci suñu turu kilifa muy le maire Ba di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo imam Mbeng pour mu jàllaleel ñu ko ci askan bi yëpp di nuyu bu baax itam te di tatagal di jox wàccuwaay suñu kilifa yi di suñu yaay yi nga xam ne ñoom ñooy amal bés yu mel nii ngir ñaanal réew mi ñaanal la président Macky Sall Makhtar Ba mu ngi leen di jottali nuyoom waaye itam di leen jottali kàddu njéggalam ndax bésu tey bii moom li doon yéeneem mooy mu ñëw bokk ko ak yéen ndaxte démb ci suba mu ngi fi waaye ci ngoon gi lañ ko woo nekkoo ko il faut mu dem Kébémer ci guddi gi ci la dem Kébémer bi mu xëyee bésub tey jii nii comme da ngeen di ñaan jàmm pour que mu am ci campagne yi waaye di ñaanal président de la république Macky Sall pour mu jël ndam li ci liggéey boobu la nekk parce que ku déglu kàddu président bi ñuy installé directoire bi nee na na ñëpp dugg fépp campagne bi bu mu doon campagne oto ne nit ñi dugg ci kër ñi waxtaan ak nit ñi mu ne yenn yi dëkk yi moom opposition bu fa demee daanaka day yàq carburant waaye fi nga xam ne fa am tuuti jaaxle mooy jëm Ndakaaru jàll Pikine dal di jëm boori Touba. ndakaaru googa nag nga xam ne foofa la am jaaxle ay doomi ndakaaru ñoom ñoo woo Matar Ba tey ci waxtu wi tempe ca Pikine pour que ñu ànd ak mataar Ba mu jàppale leen ñu lijjanti seen jafe-jafe yi nekk foofu loolu moo tax Matar xëysiwul fii tey nekk ci mission président de la République mu ne ma woon boo demee ci jotaay ba nga xamal ma leen loolu moo waral sama wuute jotaay bi waaye altine ak jàmm ci kàttanu yàlla dina ñëw Fatick fas yéene toog ànd ci campagne bi mu ne woon bu ñëwee itam dina fexe recevoir leen toog waxtaan ak yéen xool taxawaay bi nga xam ne moom ngeen ko war a taxawee ci campagne bi ñu jàppale leen pour ngeen mën a liggéey li nga xam ne yéene ngeen ko le président Macky Sall mu ne woon itam comme le set dañ ko aadawoo di def bu day tombe ñu nekk ci biir campagne bi te am na yaakaar bu baax ne dina nekk biir Fatick bu ko defee mu ñëw fii ànd ak comité électoral communal bi yépp fas yéene bokk ak yéen waxtu woowu waaye ba léegi kàddu yi kàddu cant ak ngërëm la jëmale ko ci sëriñ daara yi nga xam ne ñoo nekk fii sonn ñu tàyyiwuñu la set bu nekk ngeen wooleen ñu ñëw ñu bokk jaamu yàlla waaye nag di jiital ci cant ak ngërëm googu suñu wéyjur muy imam Mahamadou Mbeng ndaxte soppe la ci màkkisal Sall waaye Macky Sall doom la ci góor gi te góor gi ba màkki di door góor gi ca la tàmbale di jàppale Macky Sall ci saayir ak ci baatin kon bu ñu demee tey ba Macky Sall falu moom mii ci ñi nga xam ne ñi ñu war a delloo njukkal ci la bokk te yemul ci loolu mu ngi ci biir dëkk bi sol dàllam lépp loo xam ne lu nar a yàqu la mu ci béy waaram pour que loolu du mën a am auzu billaahi mina sheytaani rajim bismillaahi rahmaani rahim ginnaaw ba ñu sante yàlla moom mi ñu moom julli ci Seydina Muhammad sang-sang yi sallallahu alayhi wa sallam sant suñuy waajur ñaanal leen yàlla yal na yàlla yokk seen leer te barsàq ba ila yawmi diin julli ci Seydina Muhammad sang-sang yi sallallahu alayhi yàlla yokk leeram mook saabaam ak ña ñam ak ña ko daan togg kon ñu dee mbooloo mi ginnaaw ba nu sante yàlla nuyu leen nuyoo bu gën a sell ne leen assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa yal na yàlla fay leen ci taxawaay bi yal na yàlla fay leen ci takku bi yal na yàlla fay leen ci dëggu bi sëriñ yi toog ci njiital imaam Ratif imaam Mbeng ñu ngi koy nuyu di ko jox wàccuwaayam di ko jox cëram di ko sargal di ko tatagal di ko ñaanal yàlla fan bu gudd ànd ak wér imaam yeneen yi fi nekk ñoom itam ñu ngi leen di ñaanal yàlla yal yàlla fay leen fay leen gudd fan ak wér sëriñu daara yi te Cissé jiite ko yal na leen yàlla fay ngeen di fay kontaan nañ ñi nga xam ne nag ñoo toog fii di ay jigéen di sunuy nawle yal na yàlla fay leen ngeen di fay seen taxawaay rafet na taayewu leen yokkatu leen saa yu leen soxlaa ngeen teew te xam ne lii ñoo ko bokk ñeneen lu ci am yal na nu ko yàlla fay te boole ñu ko ñu ñëpp ñu bokk ci Diabinte Seck ñu lay nuyu di la sargal honorable député di la jox sa wàccuwaay ah te meew yombul pël hmm. du ñaq du réer borom yal na yàlla fay la te la yegg suñ présidente Ndeye Fane ñu koy nuyu di nuyu bureau bi yëpp Mbaye Diouf ñu lay nuyu Zakaria nuyu nañu la ci kat ci bataar ba ñu ngi lay nuyu ndax darajay ki nga yónni ki la yónni moom nga yor ndax moo la yónni mataara la yónni kon nga teew fi wax wax ju rafet yi ñu ngi lay nuyu di la sargal di la delloo sa njukkal di la ñaanal yàlla gudd fan ak wér Papa Diop masaalika naka noonu ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di la ñaanal yàlla gudd fan ko ànd ak wér nga yéen ñëpp bàyyi wuñ kenn suñu doom yii duñu filmeel ñu leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla bu ko yaakaar yàlla moom mi ñu di ko ñaan te tàyyiwuñ te dama koy jox waaye boo noppee bu yàlla yàlla buur bu maandu la boo noppee rek mu ne ñaan yi ñu daan ñaan guddi ak bëccëg suba ak yàlla di ko nangu yi bii yàlla na ci bokk li ñuy ñaay moo leen rek yàlla def fi jàmm yàlla na fi yàlla def jàmm jàmm ju sax dàkk def ko ci réewi jullit yëpp def ko ci senegaal yëpp def ko ci Fatick yi nga xam ne fi lañ bokk fi lañ cosaanoo fi lañ yàlla fi yàlla wàcc jàmm wàcce fi ndox mu sedd guyu guyu guyu guyu ma mel ni glace yàlla bu fi seytaane am yoon yàlla bu mu am yoon fenn fenn fenn fenn fenn fenn fenn yàlla mën na ko yàlla nañu ko defal ci barke alquran barke Fatiha ak salatul Fatiha ñu ñaanal yàlla nag Macky Sall dañu ko daan ñaanal de yàlla yi nangu ñaan nga lii na ci bokk Macky yal na am ndam Macky Sall na ko yàlla may ndam Macky yal na ko yàlla may ndam ndam gu ànd ak wér ak wérle ak képp koo xam ne yéene nga ko ko ak képp koo xam ne am nga ca yaakaar yal na la yal na ko yàlla may ndam lu seen. amiin mu jàll premier tour. waxuñu deuxième de premier nag lañ wax. yàlla mën na ko yal na ko def. su ko defee yal na ko jig te jig ñu. yal na ñu fekkee lépp. yàlla bu ñu uute dara. yal na ko su sunu njaboot fekke yal na ko ñëpp ñëpp fekke barke alxuraan. ñi ngi ñaan jigéen ñi nag ñoom yaay yi ndax coono bu amee yaaya sonn suñu delloo ca kër ga. nañu waxtaan ak njaboot gi nañ leen naat nañ leen yedd nañu dalal seeni xel nañ leen wax àddina ndax àddina yàggul te ñoom xale lañ te yoonu ndaw du gaaw nañu muñ te tàllal yàlla loxo yàlla mën a faj lépp ku la fi ne mën naa laa fajal it day wax lu ko neex waaye yàlla mi mun a faj moom boo ko ñaanee te sellal dina la may kon suñu njaboot gi lépp lu ñuy jàmbat muy seen mitit ak seen tiis ak seen naxaar yal na ko yàlla teggi te fajal leen ko lépp luy seen njàqare ba mu tax leen di ñaxtu mbaa ñuy mer yal na yàlla faj seeni soxla yàlla de moo mën a faj yal na ko faj yaa rabbi yaa rabbi nañu muñ bu nu ñaxtu bu nu saaga bu nu xaste bu ñu wax lu ñu war ta wax ndax ñu baax a leen jur ku gis jigéen ñi toog nii yaaram yi jigéen ñu baax ñii ñii nga xam ne ay yaaram lañ ku ñu jur dangaa war a baax roy ci ñoom ndax ñii ay yaay lañ waaye ñaxtuwuñ de dañoo tàllal yàlla loxo toog fa ñu war a toog ba yàlla sargal leen sagal leen jox leen cër bii tey ñu toog jataay bu rafet bii <coughs> ñii ku leen xam ne gis ñu toog xam ne ñu baax a ngi ni nañ naan njaboot gi képp ku fi ñëw di dox sa dox nañ la bàyyi nga dox la nga war a dox soo ko doxee nga dem te bàyyi ñoo jàmm bu ñu ñëwee nañ ñu indil jàmm bu ñuy dem nañ ñu bàyyi suñu jàmm nañ leen seetaan ñu dox seen dox te ñu ñaan yàlla moom mi nga xam ne mooy may yàlla nu may ndam bu nu ko mayee yàlla nu ko fekke yàlla na nu ko tal ndax itam képp koo xam ne def nga fi loo war te def dañ la yóbbu de te kër buur su ko defee yaa ngi nekk fii jooy fu ne ñu mbëkku fa naan may leen ñu li ñaan njekk balaa loola nag ñu waxtaan ak ñoom nañu muñ yàlla dina faj seen soxla yàlla mi mun a faj dina faj seen soxla te amaana lii ñuy yoot bu nu ko jàppee amaana soxla yëpp dinañ faj kon ñu ngi gërëm ñu ngi sant ñu ngi tatagal lépp lu ma fi war a wax waxuma ko nag dama ko fàtte de doomi aadama demee noonu kenn matul ngeen baal ma àq wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin barke ibrahima ñas barke yonent sallallahu alayhi wa sallam ah kon ñu ngi siyaar imaam ni nga ko waxee boobu ma siyaar leen ci olof. loolu a dem ci li man na ah ñu ngi siyaar sëriñ daara yi jiite eh, sàngum siise ñu ngi leen di siyaar yi jigéen ñi ma jàllale ko ci soir de faar kaamil bi tey suñ ko lalee fu ne ma wax ko ndax nag dara génnul baa di deme xalaatu nit mu ko ne mooy suma xalaat man de kaamil bii ci làmmiñam la bàyyi ko moom suwaat moom de ba ñu tabee ne sage dañ koy def mu boole ci yéeneem nag ma ne damay bàyyi mu ne bul bàyyi am na luy ñëw yaay borom ndeysaan ci xalaatam bu rafet la te booba yàlla rek a xam ñu oote ko ma gañe mu ne lii mooy sa cër ah kaamil bi defee làmmiñam la bàyyi ko jërëjëf faa yàlla dëgg gën laa dëgëral te gën a nàmm nag sa xel mi ak suñu aas bi ñu tollu kenn ku ci ne yàlla taggatal sa xel mi ba yal na buñ naax yanu yàlla moytul naax ndax xalaat yi rafet na dëgër na ah bindikat yi noonu teekatu xaalis yi su leen yàlla jéppi woon xaalis bi yàlla moom doful mhm. boo la joxee nga yàq rek mu yàqal la waaye xaalis bi bañ koy sàmm ba léegi day yokku yaakaar naa waaye wàññeekuwul kon njëriñ ngeen jëf bindkat yi ak sàmmkatu xaalis ak ñi nangu nag dogal ndax danga yow dara te duñ ko nangu buñ ko nangul yàqal la ko waaye mbooloo mi kenn yàqu ñoom ñëpp a doy lu wax ji doy lu programme kon njëriñ ngeen jëf honorable député merci lii du sens mérite la parti bi yaa ko sos kon loo ci am rek sa cër la cër bi yal na ko muur ak sa njaboot ak mboolem ko la ko yéen sekk jërëjëf soo at wax na ko meew nag dafa jombul pol lii moom jomb la moom dombal tànk bii ah yal na ci màgget nag ak ñun ñëpp ñu ko seqoon yal nag bu ci gàllankoor dugg sekk jërëjëf macha allah kon na foog séeréer mi naa sim naa nuun na faax roog fa xormano tuleer jare ngeen jëf ka e nam u nda in way sooga olof a ley Mbacke Ndiaye in way sooga Mbacke a Ndiaye o ɓiy ino xene te tek it meeke a ɓaato numtuwiida laltiit tek um Sénégal rek roog a dimle i président de la République ndax ay e diplôme rek na jala fof ande de la république nda roga ma ta bugo dimle mu reewu adna président fiyama ta bugo roog merci subhanahu wa taala li nga mun ñun nga ko jox yal na sax bekero ñuy jàkkaarloo yal na buñ ci rus ci jàkkaarloo ko nuno fog seereer campagne weta alhamdulillah i soogo xa teen yaasam i sutoox teen alhamdulilahi rabil alamin ngelaba kiina lay teen o kenum ka ta wareeruna lay ngir o buga maki rek mhm. fat i yoon teen fadnan rek fa ngor rek to ina mene yoon na ngelaba i yaq i falaxin ba i njep il ba i njaxas fa lay o kiino kiin nu ta gartonga rek nan na ande fa lay fu ga'oona o nana o jeganga nan o rek waagkiro guta ten fo xe fogtanoona kon Matar toujours bo campagne e a weta in na mbeta campagne Matar xana mof fa in in way nqeɗa roog o deremo nu rokna ɓay in xeɗan te tasna xa ɓay nu parce que nak a jega jeg ka andoona yee baadoolo weesu'ooxiran tiga gangim nuuno a jeg ka nu mbi'aa teen a nuun we ɗasa na ndok nu ndoku de ndaa bilaay Yàlla ngidama kale xe ga'a donc inoki in xana conin ke te warna ɗaaw nda in way ngeɗa rooga fotureer Mouhamed ku refna luɓay ino campagne nene yasam ba fe fa ina garna xa ɓay nino fop i nga andoore parce que na président de la république mene lime nda wax i mbage njaɓ sax ta moƴo gore a i njaɓ kiran ke ta in ka i tasan mayu a yaqooxa meen ngir ñak o tas nda kene ga'anga ta geenu ne ta garta nena ret ta ten taxu confiance fe xu jegruna to kene kataɓaro jeg no julit koɓ julit katamo sahla ta jeg confiance no xeta yonit na na jamano ande roog fokato nuun roog oxe fokat na in a fel'angan i laya ɓambar o na ndetee fo kene nda a fañana fokata in a sinig a fokata in i laya seereer ta olof ke bo ina na olof bo mbaag o lay olof ke ken na saxa olof moƴ mo waag roog a seede an fo tuleer kon imam ke moof na mene a yoon fa in oxu caaxaan nan na kene caaxaan refee teen de yakaraame kaamil a tasa tas no sénégal ñaaɗi tadi te kaamil oxe fudnel wene anda teen dara ñaaɗi tadi ko jaxɗanga fudin a ndoko mba o fudin mbindof mba o fudin a saat of kon kaamil feeke képp nuna fudnan to te refna wo o faño ɓek teen a tax parce que o leŋ wala rabit roog rek waago rabit kaamil ke na fiyanel kaamil i mbari el haalis ndawanna ɗeet fo ñaf ɗeeto portable of tafi wari o xotkin neen kaamila nandu na bàmmeel to nena nandu na askan fe o yena angano kin dogu oxtede ka soɓan na bàmmeelum bu yàgga ta kontaan ba ñananom nu ne mbiw na kon nag aduna a ndef waajur fo ndenana parti fe to ndefate teen fa xa ɓi ina xe ino fop wa aduna in barsak in we ngel yena a den kaamil fe ke da soɓka den maaga waajur ke a mbaago njegoɗa e denonɗam an sakto xa ñanana in bo teranga i yene ina den to i maade teranga kaga ndefna den a numto xinna in roga wagan xeɗanta fi na daraja nutulel mouhamad barke Cheikhou Tidiane Ibrahima barke yonent bu sell bu sell bi nga xam ne moo ñu woon yàlla moo ñu woon boppam ba ñu mun koo gën gom du caaxaan bugg yàlla du caaxaan yàlla moo la koy jàngale ndimma rek la laaj te yàlla moo ñu dimbali ci bugg yàlla yal nañu bugg yàlla yàlla yal nañu yàlla buggal boppam asalaamaaleykum wa asalaamaaleykum mbooloo mi ku nekk maa ngi lay nuyu sa tur ak sant di leen jox seen wàccuwaay nuyu nag imaam yi fi toog di leen gërëm di leen sant di seen seen taxawaay yéen yéen ñi nga xam yéen yéen ñi nga xam ne ku soxla ci yéen lay ñëw ku jaaxle ci yéen lay ñëw ku génn àddina ci yéen lay ñëw ku judd ci yéen lay ñëw kon ñu ngi gërëm leen sant seen taxawaay di gërëm nag responsable yi nga xam ne ñoo toog muy Pape Diop ñoom baay Diouf ñoom ñoom Zakaria ñoom Cheikh Dieng ñoom Gadiou yéen ñëpp maa leen duñu dina gërëm seen sant duñu nag Adja Suado ak Adja Dey Fam di jiital nuyoo si ñoom di nuyu nag suñu yaay yi nga xam ne yéen a fi toog yéen ñëpp ñu leen di gërëm leen sant di wax ne yàlla na leen fi yàlla bàyyi ngeen ñu wécc ba ci kanam Adja Ndeye ñu dañoo kontaan ndax ñu ne yéen a àndoon. dëgg la 98 lañu ànd ak yéen muy consortium des femmes Amazon. ci biir consortium consortium des ama Amazon ñu génn leen ci ne yéen ay doon sage ngeen continuer seen liggéey boobu ba léegi sonn leen taayiwu leen kon yeneen yàlla jàppale. fi ñu bugg a egg président yéen fi yàlla eggale. ñu gërëm suñu maire muy Matar Ba ndax li yëpp moom la moo leen jàppale ba tax la set bu nekk ngeen wàcc kaamil Macky Macky Sall ah, dafa bëgg dëkk bi xam ne dëkk bi bëgg kon nañu koy ñaan fa mu bëgg a yëgal nee na ko fi yàlla yëgal suñu président nag dara jomb ko dañ ko jàppale te yàlla tax ndax toog ni président ci région ñëpp ko bëgg kon nag suñu ko amee dañu ko war a jàpp fukki loxo juróom defal ñëpp nag dañuy jéem day jéem rek wante yaakaar naa ne mandat bi di ñëw yaakaar na baax te Macky gor la gar mi lu mu wax dina ko def kon nag dañ ko jàppale te tax su ñëwee le 19 na ngeen ko teetoo day ñëw fii fatal 19 pour campagne bi na ngeen ko teet teet bu rafet le 16. le 16 le 16 day ñëw ngeen teet ko teet bu rafet boo xam ne ñëpp ay kontaan ñëpp génn yàlla baax na ba mu doon ne tàkkusaan tàkkusaan ne fekk ñëpp am jot. Mm-hmm. ngeen génn xale yi génn ngeen yedd xale yi nag te xam ne lu jot yomb xale bu ndaw karam karaw bu ñuul dara yomb ko ku war am di nga am portable am da nga xam ne yàlla la yàlla mooy dogal te yàlla na yàlla dogal kon nag ñu ngi gërëm leen sant yéen ñëpp. dina wax nag sama programme bi ma am le 15 mooy bi ma defe woon dakaar boobu ba léegi mënu ko woon monté ñoom nag ñoo def tournée ci région yi tey ñu nga Louga tey Louga lañ nekk le 15 dañu ñëw seet si ma fi Fatick te yaakaar naa jigéen yu a bokkoon nañ ci ñu leen di ñaan su keroogee ngeen sol yu weex lañ laaj ko am lu weex sol ndax jàmm la ñu laaj kon nag ñu ngi gërëm ñëpp di sant ngeen ñëw jàppale ma ci bés bi ba nga xam ne région yi may fekk si du ma am gàcce biir Fatick jërëjëf kontaan naa merci jërëjëf bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu mbokk Fatick yëpp di jiital ci nuyoo bi nag sunu baay sunu imaam ratib Serigne Mouhamadou Mbeng moom papa ci ñun Fatick ñëpp xam nañu loolu ndax moo toogal tey Ismaïla Dieng njabootam yëpp lépp lu ñuy def lépp lu ñuy wax moom lañ ciy jiital mais ma ciy teg aussi sunu mbokk taalibe yi nga xam ne ñu ci bëri xàmmee naa leen ndax relation bu ñu amoon ak suñu baay di koy fekk ca kër ga kon ñu ngi leen di gërëm mais di gërëm suma yaay yi waa Fatick yi ñi nga xam ne ñoo am initiative bi di organiser kaamil bi fii weer wu nekk man nag li ma ci boole euh, bi yoon sama yaay maire Khady Wàcc moom ma ko wax ndax moom moo ma ci boole moom ma woo ne ma dañuy wàccee kaamil suba ci mairie bi bëggoon naa nga ñëw fa kon maire Khady maa ngi lay gërëm ndax lii yiw la ku la ci boole war nga koo sant war nga koo ñaanal lii nag lu rafet la jàng alxuraan ñaanal Matar Ba mi nga xam ne moom moo ko initié di ci doon def alalam bu yàgg ba léegi ndax lii événement bi taxul presque mat na juróomi at ci bu ma bu ma weer bu nekk ngeen daje fii jàng alxuraan alxuraan nag lu baax la macha allah ñun ñëpp ci loolu la ñu la ñu jokk lu ñu am aussi loolu moo ñu ko gënal kon bu Matar initié lu mel noonu ñi fi daje weer wu nekk di ñaan mu ciy def alalam buñ fi dajee tey war nañ koo gërëm waaye bis bi nag tey dafa am leneen lu ci lu ci lu ci lu ci laxasu mooy nga dafa ala dawme comme ni sëriñ ba doon waxee ndax dañu jëm ci élection élection présidentielle ñu jëm ci war a falaat doomu Fatick war a falaat suñu mag war a falaat doom ci yéen muy lu sérieux loo xam ne du ay at mbiru caaxaan ma jàpp nag ne jege boo gis gën a jege dafa am boo demee Tamba ñu ngi def lii boo demee dakaar ñu ngi def lii boo demee dans le ñu ngi def lii bas ma nag waa Fatick yi nga xam ne ñoom ñoo jur Macky Sall ndax président Macky Sall kat bu duggoon ci salle bi tey mun naa ne kum ci nuyu dina jaar ci sa tur dina jaar ci sa sant kon yéen yéenee ay waajuram yéen yéenee ay kilifaam bu ngeen jiitoo nag di def lii ñun mënuñ lu di koy rafetal te ñu ngi koy rafetlu bu baax macha allah di ñaan rek lii yàlla na sax te alxuraan bi ngeen fi jàng lépp lu ci yiw yàlla na ñu ko jëriñoo moom it li nga xam ne moom lay wut di un deuxième mandat yàlla na ko ko yàlla may ndax moo jig réew mi waaw moo réew mi am na bilan bu nga xam ne war na ko présenté te bilan bi yéen ñëpp xam ngeen ko ndax mag ñi fi nekk macha allah ñu ci ëpp ci yéen li ñuy wax bourse de sécurité familiale ñu ci ëpp ci yéen am ngeen ko ñi nga xam ne ay retraité lañu ñu ëpp ci yéen gis nañ li mu def ci secteur u retraite Macky Sall rek moo nekk président boo xam ne ci àdduna ndax man ci IPRES laay liggéey ci sécurité sociale laay liggéey moo yokk pension mag ñi de plus de pour cent loolu amul ci benn dëkk ci àddina amul ci benn dëkk ci àddina laa wax Macky rek moo def loolu ndax dafa xam coono xam lan mooy yeewu sa yaay amul dépense xam lan mooy feebar te bu mun loo faju donc ku def loolu buñ ko jàppalee dina def leneen te moom moomuñu wax nañu ñu waa IPRES dama bëgg ngeen liggéey ci projet bi nga xam ne képp ku amati euh, juróom benn fukki at ci senegal te mosoo cotiser ci keesu retraite dinañ la jox li ñuy wax euh, minimum vieillesse Macky Sall mu ngi liggéey ci loolu minimum vieillesse mooy ku am euh, juróom benn fukki at te mosoo liggéey bu weer wi deewee dinañ lay compal dara même bu dee ñetti junni ñu jox la ko te ñun ay doomu taalibe lañ xam nañu sëriñ si ñu ci bëri mosuñoo liggéey ci ci sécurité sociale mosuñoo liggéey fenn bu ñu retraité amuñ sax retraite kon loolu yéen sëriñ si la koy defal kon loolu suñu yaay yi nga xam ne mosuñoo liggéey la koy defal ñi nga xam ne amuñu pension la koy defal suñu imam la koy defal muy Mamadou Mbengue xam naa loolu moom dina baax ci moom ndax kër Mbengue ni boo loolu duggee macha allah donc ñu di leen di ñaan di koy ñaan waa Fatick mais di koy ñaan waa Sénégal ñu jàppaat gën a jàppaat encore ki nga xam ne mooy président Macky Sall ñu jox ko un deuxième mandat ndax loolu moo gën ci Sénégal di rafetlu jotaay bi di nuyu suñu yaay yi encore une fois ñi initié lii di leen di sant di leen di ñaan lii sax ndax alxuraan moom fu muy wàcc waxuma la euh, at bu nekk mais weer wu nekk ngeen saxal ko foofu yiw rek moo fu mën a judd ala sayyidina Muhammad salaamu aleykum mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp ci imam ratib sëñ Mouhamadou Mbeng façon yéen a jaar kenn ku nekk ci sa tur parce que yaakaar naa ni ñu fi nekk ñëpp ah wala boo ñi si ëpp xam naa leen bu baax a baax yàgg nañu nekkandoo ci dëkk bi dama yaakaaroon ni bi Zakaria waxee ba pare Adja Souadou wax li ñu wax dafa mel na loo xam ni li fi waroon am yëpp daanaka wax nañ ko mais képp ku yëkkati kàddu nga foog ni moom itam la mu wax moo dàq li paase loolu yëpp day wone ni nit ñi dañoo déggoo euh, loolu nag bu amee bu fekkee ni déggoo am na rek bu ñu ñaanee yàlla may na ko madame le député te ñu ngi lay ziar di la nuyu di la jox sa wàccukaay di la ñaanal aussi kon li ñëpp wax yal na yàlla tette la teral la fa nga nekk yal na nekk sa gën nekk lu gën pour waa Fatick nekk lu gën si pour Sénégal yi euh, liñ fi wax Zakaria jërëjëf mais li nga wax si yow la yi fii Pape Diop moom kenn ku nekk xam na ko ci jëfam ci biir dëkk bi yaakaar naa ni dëgg yàlla euh, ñaanal ko baax na trop gaju jërëjëf merci Maodo maa ngi lay ziar bu baax a baax xam nga li ma wax xam nga Cheikh maa ngi nekk costume bi ba di nuyu Adja Souadou ak ma Adja suñu présidente lay faat moom suma présidente la sama la te bu ma ko waxee xam na lu tax ma wax ko parce que lu tey la yàgg na euh, kenn ku nekk maa ngi lay nuyu di la ziar sëriñ si jërë ngeen jëf yal na leen yàlla fay yal na leen yàlla defal tawféex bi barakati rasulillahi sallallahu alayhi xam ngeen dafa am ñaari mbir ku ñu sant ak ku sant sa bopp xam nga kaamil bii ngeen di def yéen soxna yi kenn santu leen ko yéen a ko sant seen bopp loolu nag mooy mérite yéen a jóg bés ngeen ni da ngeen bëgg tawféex ci dëkk bi bëggal ko Matar bëggal ko Makki mais bëggal ko Fatick bëggal ko Sénégal yëpp ngeen indi loo xam ni lépp loo xam ni doomu aadama soxla na ko walla koy wute mooy yàlla yàlla nag moo wàcce alquran euh, xam nga yonente salallahu alayhi wa sallam dafa wax ni xud min alquran ma chexta li ma chexta mu ne nga jël si alquran li nga bëgg faje ko li nga bëgg mais yéen ngeen gis ni comme dafa ni jëlal si alquran loo bëgg faje ko loo bëgg yéen ngeen jël fab alquran yëpp pour faje ko kon ala kulli haal ñun dañuy jàpp ni ñaan yooyu noonu la ba pare kon ñuy ñaan yàlla subhanahu wa taala ñii nga xam ni ñoom la fi yàlla teg ñu koy def ci seen kanam muy sëriñ Amadou Mbeng yàlla nangu li ñuy def yëpp yàlla ko yàlla nangu. Euh, man damay wax toujours ni nit ñi il faut ñu def attention bu baax ci seeni i jëf ak ci seen i xam nga bokk na ci liy yàq bokk na ci liy yàq société benn kàddu boo xam ni toujours dama koy dégg mooy gisuma ci sama bopp. gisuma ci sama bopp nit ñi war nañ ko évacuer teg ko fale ndax li tax ma wax loolu moo di doomu aadama dafa am benn nit si boor bi mu am fi société muy Sénégal yëpp ngay def benn nit ni gisu ci boppam te Sénégal yëpp gis si seen bopp nit kooku war na fàtte boppam parce que si biir société bi la bokk bu may defar tali fekk benn nit am fale benn problème am ma jël alal ja def ko sa tali ba mënuma faj soxla nit ki mais nit kooku na xam ni si tali la bokk. mu ngi leen di ziara mu ngi leen di massawu ngi leen di ñaanal jàmm. di gëdëm. di ñaan ci yàlla teg jotaay bi yal na ko yàlla nangu li ñu fi ñaan. nee na mi ngi gërëm jotaay bi di ñaan yàlla li ñu fi ñaan yal na ko yàlla nangu. yal na yàlla defal ñi ci lu raw suñu njort. li nga xamee ne moom ne cee séntu yal nañu yàlla jox lu ko gën. yal na yàlla def jàmm ci réew mi def ci dal def ko ci wote yi. nee na yi ñu jublu yal na ci yàlla def jàmm def ci ak dal. def ci sutura. defal ñu ci itam sutura. te suñu candidat yàlla may ko ci ndam lu suñu candidat yal na ko yàlla may ndam lu yaatu. amiin. ngeen baal ñu ak nag. nee nag mi ngi dellu di jégaluwaat ñëpp. may leen yàlla. mu ngi jég dellu di jégaluwaat ñëpp. lii doorte maanaam campagne bi la. nee na ndaje nii ñu dajee dañu daje pour ubbi campagne bi. pour ñuy def ci bisimilah rahmaani rahiim jeexal ko ci alhamdulilahi di ko commencé ak bisimilahi rahmaani rahiim di ñaan yàlla yal nañ ko jeexal ci alhamdulilahi rabbil alamin responsable politique yi fi nekk nag. nee na kilifa yi fi nekk di ay ndaw politique. ñu ngi leen di ñaan. nee na ñu ngi leen di ñaan. loo xam ne. loo xam ne. loo xam ne. suñu xalaatu bopp la ñun. xalaatam la muy xalaatu boppam. 2012. nee na 2012. bi ñu ubbee campagne da demee ñëpp ñu bokk waxtaan. ba ñu ubbee campagne ba ñëpp dajee bokk toog waxtaan. ku nekk wax na nga war a def parce que boo Macky Sall fekk mu nekkoon ci ay jafe-jafe. kenn ku nekk dafa waxoon lan nga war a def ndax jamono boobu dafa fekkoon man Macky Sall nekkoon ci ay jafe-jafe. ci ñetti at yoo xam ne ci ay jafe-jafe la nekkoon. boobu mu ngi génn ci ñetti at yoo xam ne yi jafe woon la ci moom. ñett bu ko dee moo taxoon ñëpp nag jëleen seen engagement. nee na loolu moo taxoon kenn ku ci nekk dal di jëloon engagement. ne lépp loo mën ci campagne bi ci say moyen da nga ko def. ne lépp loo am ci ay kattan ci ay jumtukaay da nga ko def ci campagne boobu ngir jàppale ko. kenn ku nekk la nga waxoon def nga ba mat sëkk. nee na ci jamono boobu kenn ku nekk de la nga dige woon def nga ko ba mat sëkk. ba Macky am ay moy ak ñàkk ay moy feeñul ci campagne ba. ba Macky ak lu mu amoon ci kattan ak lu mu ñàkkoon ci kattan feeñutoon ci campagne boobule. ñun ba ñu toogee lañ leen waxoon mooy. nee na moom ba mu toogee ak ndaw ñooña lam leen waxoon mooy. ñun mënuñu dem ci meeting. ne leen ñun de mënuñ dem ci benn meeting. mënuñu bokk ci kawa daxaan ak yéen da wër dëkk bi wala maanaam réew mi. mënuñu def itam karawaan di wër dëkk bi mbaa ñuy wër réew mi. suñu kuréel la ñu am. li ñu am daal mooy toog yor suñu kurus. ñu dajale élimaan yi ci dëkk bi. ñu dajale woon élimaan yi nekkoon ci dëkk bi. ak jàngkatu alxuraan yi. ak jàngkatu alxuraan yi. ñu am ñeenti fan ci am ñeenti fan bokk di dajee ci jàkka ja dafa def ay daje ñaan ci biiru campagne bi. dafa ñaan suñu borom bi subhaanahu wa ci biiru campagne bi. dem nañ fa 124000 ci salaatul faatiha. defoon nañ ko ci salaatul faatiha ak li mu téeméer ak ñaar fukk ñeenti junni. ci salaatu ci diiru ñeenti fan. loolu ci diiru ñeenti fan lañ ko defoon. ñuy togg añ da leen jox ñii nga doon suñ participation ñun. ña nga xamee ne ñoo fa nekkoon nag foofu lañu doon yendu di fa añee loolu daal moo dekkoon suñu wàll ca campagne boobu la. léegi nag. fi ñu toll nii nag. la ko tënkoon tinki na ko. moom la ko tënkoon tinki na ko. ma bëgg yéen responsable yi. bu bëgg nag ñi nga xamee ne tey jii ñoo fi toog toogee toogal toogee fi turam. ñi eh, nga xam ne jox nañu ay ma yi ngeen campagne yi. su fekkente ne jox nañ leen dara loo xam ne moom ngeen di campagne. ngeen tomp ci jox ci kilifa yi diini yi ñu toog ñu daal la nga xam ne moom ngeen am joxaat ko nitu diine yi ñoom itam ñu daal di toog. defaat ñu def ñu defoon. ñu defaat nañu defoon. waxuñ lu ñuy séddoo lu ñuy toggee añ. waxut nag dara loo xam ne dañ koy def ci poos want daal ñu fay yendu rek insha allahu taala bu waxtu lekk jotee ñu mën a lekk mën a naan. loolu lañ bëgg yéen ngeen def wala ngeen wax seen kilifa mu jox leen ngeen jox. loolu daal mooy li nga xamee ne lii moom lay séentu ci ñi nga xamee ne ñi ñoo fi toog. suñ ko mënee def baax na. suñ ko mënee def xalaatu boppam la nag man sama xalaatu boppam la. na loolu nag xalaatu boppam la. waaw ah, parce que booba ñun ñoo daan togg ci suñu moyen añ. ñeenti fan yàlla. may togg añ ci sama kër. su ko defee maanaam ci la ñuy indi maanaam ko def buñ kilee ba ay ba ay deux heures añ. suñ jullit bi war continuer ba six heures door a pare. yoonu ko ba bañ koy def nee na moom ci li ko yàlla wërsëgal. ca la doon sukkandiku. ngir ñooñu toog bu waxtu lekk jotee mu jox leen lu ñu lekk su waxtu naan jotee mu jox leen lu ñu naan ñu yendu fa liggéey ci suba gi su ngoon jotee ñu bokk liggéey def ko ñeenti fan léegi nag def nañ ko ci premier tour def ko ci deuxième tour def nañ ko ci ñaari yoon yi nga xamee ni li ñu bëgg nag maanaam que ñun loolu mooy suñu campagne waaye nag foog ngeen jox ñu ay moyens su ko def maanaam loolu